toppal ma tànki gaa yu baax ya aw jiib xal wu topp leen bul wàcciib jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy bàyyi xel seen chaîne zone 28 dal leen ak jàmm ci seen première numéro seen émission topp tànk topp tànk nag comme ni ngeen ko déggee dañuy dem topp ci ay tànk koo xam ne nii nit ñi walla ndaw ñi fas yéene nañoo topp ci ay tànkam ngir doxin wu am solo woo xam ne ni mi ngi koy dox euh, ci àdduna bañ war a jël ci moom exemple tey ji nag ñu ngi fii ci Ndindi ngir fas yéene topp tànku Serigne Chérif Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Fadal ibnu Xaadim Rasoul xool ci wan yoon la jaar ak doxin wi nga xam ne nii mi ngi ci boobaak léegi ba ñu bëri ci jeunesse bi fas yéene topp ay tànkam kon dangeen di ànd ak ñun ñu topp tànku Serigne Chérif Mbacké fii ci Ndindi toppal xal wu ku topp tànki gaa yu baax ya dooreer tun du tee raw bu wér a ko deful topp ci ay tànk nit ko nga xamante ne nii nit ku royukaay lañ ko mën a jàppee euh, ci yoonu muytu wala la nga xam ni moom lay def ci ab euh, dundam loolu nag tey moo tax premier numéro bi jaglee lu ñu ko n'importe kii ñu gis ne moom Serigne Chérif mi nga xam ne moom lañ leen présenté woon si buntu bi euh, kenn daj njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal waaye itam liggéey liggéey bu am solo boo xam ne nii euh, ci lislaam ak yoonu murit kenn nattableetu ko ba tax am ay tànk yoo xam ne nii ci bëri seen mébét mooy topp tànk yi nga xam ne ni moom ci la jaar ba tey mu mën a doon sëñ Chérif mi nga xam ne moom la ñu bëri xam loolu nag moom moo tax ñu fas yéene ñëw tey euh, séq ak jotaay waxtaan ngir ñi nga xam ne nii fas yéene nañoo topp ay tànkam xam fan la ñuy teg seen tànk ñoom tamit laataa ñu guddal nag dañuy bàyyi sëriñ bi mu nuyoo ak téléspectateurs yi ñuy seetaan su ko defee ñu doog xuus ci waxtaan wi sëñ bi ñu ngi lay ziar. bismillah rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu soxna si ñu ngi lay fay di la delloo nuyu itam mbooleem mbokk yi nga xam ni eh, ñu ngi fi teew walla waxtaan wi mën naa àgg ci ñoom di euh, ñaanal ñëpp atum jàmm ndax daal mel ñu ngi door dugg ci at mi te di ci rafet njort lool ndax <clears throat> ni ko sëriñ bi digle ñu ubbee ko ni te mooy li xew barki dem ci Touba muy Cheikh mu Mountakha yàlla na fi yàgg te wér muy ubbee ci li nga xam ne mooy liggéeyub sëriñ Touba la ci gën a kawee te mooy xasida kon am nañ yaakaar ni at mi incha allah dina doon atum jàmm dina doon atum tawfiq ci barke sëñ Tuubaa nga xam ne mooy suñu yaakaar teegal ak sëñ Chérif ñun ci suñu xam-xam bu gàtt dañ naan mooy sëñ Chérif Mbacke mu Cheikh Mamadou Fadal mais yow xëy na bu ñu la doon laaj yow di nga am beneen tënk boo mën a présenté sa jëmm yow yaay kan boobaa lan lay doon waaw Chérif Mbacke laa tudd Chérif Fanta Madi Mbacke laa tudd ganee àdduna fii fi Touba ba am juróom-ñaari at ñu ma mattee dara jàng ñu jox ma sama maam ki jur sama wajuru jigéen ñu dox sëñ Modou Mokhtar Sylla wala jàngi alquran bi ma demee itam mu boole maag sama nijaay ñuy wax sëñ Daam Sylla moom itam moog sama wajur ñu bokk lépp moo nga jàngal alquran ci kër ma ñaw fa laa nekk ba tàmbali bind kaamil ñi faral kii sëñ bi ma doon jàngal di sëñ Daam toxu ci dëkk bi bi mu ñëwee ñu ànd nga xam ne fii laa bind kaamil ci dëkk bi euh, loolu daal ci tàmbali noonu foofu laa jaar ci lu ñu mën a tënk ci li nga xam ne moom mooy baaxu Euh, ñu dëkk dëkk bi ni ñuy doxee ci wàllug gannaaw ak ngone foofu daal laa ci jaaragul ci li nga xam ne mënees na ko tënk bi nga xam ne ñëw naa nag bi bind kaamil bind ñaari kaamil bi njëkk bi ñu yóbbul ko sëñ Touba te boobu mooy Saint Blaat 1973 la 72 73 bindaat beneen kaamil boo xam ne bi jox naa ko sëñ Modou ndax moo boobu it moo fi sëñ Fall bi loolu noppee nag ci laa dem ko sëñ Chouaïbou am naa fa ñaari at euh, tàmbali fa jàng xam-xam jógee fi dem Égypte bi ma demee Égypte itam dem ci al azhar ci maad bu ñuy wax maadu maadul buus al islamia te mooy institut des missions islamiques moo xam dafa topp ci université al azhar fa laa nekk ba am fa bac bi ma amee bac nag ba dugg université dafa men at jógee fa dem France itam dugg fa ci fu ñuy wax al al maadul watani li ad dirasat lillugaat wal xadarat charqia maanaam institut national de langues et civilisation orientale mu bokk ci Paris 3 fa laa jànge moom itam ba jeexal fa 1992 ñibbisi bi ma ñibbiseeg léegi nag moo dellu ci daara ji ak di ak yar ak yu mel noon daal loolu daal ci tënk ci lu gaaw a gaaw loo xam ne mën na cee jaar jàll foofu laa awagoon ci wàllu jàng ak wàllu daara. lii jaar jaar yu am solo yooyu nga jaar yëpp. fan nga tegoon sa tànk ci lu ci ci ay repère wala koo bëgg a doon wala ci loo bëgg ci loo bëgg a yëngatu. waaw loolu moom euh, xanaa li ñu yore woon rek maanaam mooy euh, jéem a topp ci li nga xam ne moom la sëriñ bi bàyyee muy ndono rek euh, jéem lu baax loo ca mën nga def ko tey ko lépp lu safaan defe naa loolu rek moo ci moo ci moo ci am solo ndax modèle yi moom bu ñu ko doon lim bari na lool mboolem jabaru sëriñ Tuubaa gi ay modèle lañ mboolem ñi sëriñ bi yaroon ay ay modèle lañ. koo ci jël rek daf lay doy sëkk royuwaay ba tax na euh, foofu daal mooy fii nga xam ni fa lañ doon jéem a jaar boobaak léegi. Hmm. bi nga bi nga jéemee jaar foofoot euh, xam naa du ñàkk ay gàllankoor ba tax nga doon tey jii kii nga doon yan gàllankoor nga doon jànkoon jànkoonteel ci yooyu jamono ba tax tey jii lu bari ñu mën nga ci laa basé wu ba réaliser ba doon ki ma doon tey. waaw gàllankoor yi moom mooy euh, xam nga jàng mi ma la ko li ma la ci ci li ma la ci mën a tënkal mooy. Euh, njàng mi dangay toog ba euh, jàppal sa bopp ne war ngaa jàng euh, sëñ Mur sëñ Murtada Mbacke yàlla ñu koy yàlla fayal jamono yooyu dem naa ci moom wax wax ko ko mën naa wax ne moom ma jàppale boo ma dem Égypte dem jàngi kon amul gàllankoor yu am solo te yàlla daf cee def kéemaan goo xam ne ci ndimbalam ak ñoom ni ñuy doxee ci baatin ak xam loo xam ne ñun xamuñu ko. bi may dem Égypte dafa ma jëndal dafa ma jox paas billet jox ma itam xaalis bu bari waaye dafa am kéemaan gu ci feeñ ndax bi ma demee Égypte toog naa fa at di jàng eh, xaalis ba ma joxoon ci laa doon lu jënd sama mbir maanaam ci laay wut fu dëkk di ci dund yàlla dogal weer wi nga xamee ne ci la xaalis bi war a jeex ci sëñ Murtala ak bëgg lu baaxam ak bëgg xam-xamam ak baatinam bu bari weer wi xaalis bi waree jeex rek faf Senghor ci jamono boo fi nekk soixante mille neuf cent soixante dix huit soixante dix neuf la ñi jàng ci dëkki arab yi te yóbbuwuñ bourse nañ leen may nga xam bi xaalis bi jeex rek lañ mayee bourse Sénégal ñu mën a wéyal njàng kon ci wàllu loolu ma du ma jàpp ne lenn la lu baat lu Sëñ Murtala bi nga xam ne moom laa tàggoon mu ñaanal ma ma waaw. léegi bi lan nga tàmbalee da ñëw daal di sos daara. ni sëriñ si di def wala nan hmm. nan nan nga bi nga. après études foofu. waaw bi ma ñibbisee. yàlla dogal na soxna May moom sëñ Tuubaa bi ma ñibbisee boole na ma ak Abdou Diouf ndax nee na ma yaa woon ci àll bi di jàng bi boo ñëwee kat war nañ la nañoo xam nga doon defee ak ñun boole ma ak Abdou Diouf mu recevoir ma ci décembre 1993 boobu daanaka lay soog a ñëw bi ma ñëwee ñu waxtaan euh, may sant soxna May bu baax ci taxawaay moom itam waa kër sëñ Tuubaa ñi ko ci tudd rek tudd nga ñëpp. wax naa léegi wax taxawaay sëñ Mourtala ñëw ci soxna May ak taxawaayam boobu moom itam Abdou Diouf bi ñu waxtaanee dugg nañ ci mbiru liggéey sax wàllu fonction publique ak yu mel waaye jamono yooyu mu ne ma fonction publique dafa bari ay jamono ay ay ay jafe-jafe du ma la conseiller nga nga nga nga dugg fonction li ma xalaat daal mooy bi ma ko waxee fi ma jaar sama parcours mu ne ma xëy na li si doon tane nga dem ENAM xam moom boo fa génnee xam naa loolu itam moom it nit ku baax la xëy na li mu ci jublu rek li mu ci jublu woon mooy bëgg bëgg maa mën a layal ci wàllu Sénégal ENAM boo fa duggee moom boo fa génnee amul jërul ngay wut ndimbal fenn da ngaa war a mën a liggéey rek d'office xam naa loolu la ci jubloon xëy na ne li ma doon def fii ak li ñuy def ENAM sorewul ndax maaxaat boobu ma la wax te mooy institut national des langues et civilisation orientale ñi fa génne tey waa France daanaka waa ñi nga xam ne ay conseillers affaires étrangères lañ bu France ñu ci bari fa lañ génn te te te li ma doon def spécialisation bi ma doon def mooy wàllu diplomatie ak relation internationale nga xam même bu doon ENAM ENAM tam xam naa loolu laa fay defi waroon defaat ñaari at waaye nag booba doyal naa ci njàng mi doyal ne ma ne ko président daal loolu bay ba nga ci rek ñu faral dem noppalu ji ci la ma defalaatal beneen euh, proposition mooy dem secrétaire secrétariat général bu OCI daal di bind la ma xamante ne la mu waxoon def na ko itam mooy dem naa ba gis lettre bu mu bindoon ci jamono dem naa affaire étrangère ba ñu jox ma ko mu doon man ak koo xam ne nekkoon na ambassadeur Brésil ak keneen koo xam ne ma tudd turam moom ko am sax kooku dem naa jëdd ba gis nañu moom jël nañ ko gannaaw bi kon Abdou Diouf moom it maa ngi koy sant ko gërëm ci li mu defoon yàlla dogal ko nag eh, ci loo xam ne xaw ma nu mu demee nga xam ne boobu lu waroon a mën a nekk la waaye xëy na eh, sëriñ bi it li mu namoon ci man du loola ba tax na daal loolu daal foofu la foofu la yem waaw. <laughs> léegi nga ci daara ji ak waaw. dellu ci daara ji da xam nekk ci daara doon ab sëriñ te xam naa ne jamono yooyu bokkut ak jamono yi léegi nii ja nekkiin wi doon na doon na jafe maanaam ay gàllankoor say source de revenu maanaam sam koom fan nga ko daan fàggoo ci lan. xam nga euh, sëñ Tuubaa moom loo xam ne lu lu lu maanaam lu jafe la xam nga lu tax mooy euh, mboolem nattukaay yi ñu xam bokk ci nattee doo gis doo ko kon. sëriñ moom li ñu nangu nun ñëpp mooy léppam kéemaan ndax ba fii na mënuma laa wax fi dama ba fii na rek li may dund mënuma xamu ko maanaam sëñ ndax mënoo ne kenn ma ko jox mënoo ne kenn ma ko jox kenn mënut ne maa ma ma maa féete te teewul li nga mënta ñàkk yaa ngi koy yaa koy yaa koy am loolu kenn mu amut aw tur maanaam sëñ Tuubaa kenn mënta expliquer waaw kenn ku la féete fenn bu man ne maa la defal lii nangam mënoo ne ni mënoo ne mukkit ne diw moomu féete fii ba tax maa mën a dox te teewul yaa ngi dox loolu mbir la moo xam ne kenn amagul aw tur ci ci benn lakk daal xamaguma ko kooku mooy Sëñ Tuubaa defe naa boo waag léegi ci loolu laa nekk hmm. waaw ah, ginnaaw boobaak léegi ndax bind nga fi ay livre ci li nga wu ngir comme jotoo ci exercer wu mel noonu ngir bañ xam-xam beeg yooyu kii ndax ci lan nga ci kii loo xam ne loolu nag jotuma ndax eh, ginnaaw bu yooyu xewee nag dama fas yéene yëngootu ci lu di jëm ci Sëñ Tuubaa dëgg la sax ba ci ba ci loolu sax yàlla dogal na mën naa ne liggéeyal naa sëñ tuuti ndax dem naa fi ay mission yoo xam ne yi xëy na formation bi ma def dimbali na ma ci moom man ko réussir dem nañ fi ay def nañ fu mel ne ay Libye dem nañ fi yoon bu dee Europe ay yoon am na ci yoon boo xam tam sëñ Saalix Mbakke radiyallaahu anhu invité nañ ko euh, Taïwan gouvernement Taïwan invité nañ ko 2004 man mi lay baloon booba itam euh, xam naa ne formation bu am na solo ndax am na fu ma jaar benn centre boo xam ne centre formation bu bu kawe la ci France bu ñuy wax CEAM muy le centre des hautes études sur l' Afrique et l' Asie moderne xam naa ne loola jaar ga ma fa jaar dimbali na ma ci ndax xam na tax na ma xamoon boobu jamono ya aqliyat euh, waa Asie ba tax na daal mission ba réussir naa ko la cee di takkit mooy ñoom jotal nañ sëñ bi ne ko ki nga fi yebaloon wax nañ ci ay ay baat yoo xam ne sëñ bi wax na ma ko euh, ba loolu jàllee itam muy Taïwan xam nga Taïwan nag li ci xew mooy bu fekkee ne da ngaa nekk ak Chine moom da ngay ndax ñoom dañoo nekk ci lu mel ni kujje bi Sénégal delluwaatee Chine dañ fay jóge waaye at yi ñu fi nekk noonu day def at mu jot ñu yónnee sëñ Saliou invitation ci seen fête national gi ñuy def defe naa théâtre national dañuy soraan lañu ko daan def lu mel ne ay ballet ak seen yëf yooyu ñu doon seen aar ak seen cosaan loolu mosut am mukk te woo boo ñëw mu jox ma lettre bi na ma sa bokk yi ci Chine dañoo fi yónnee lii xam naa boo ca mënee dem nga dem boo ca mënee dem nag mooy ci ci yow la aju moo tax mosuma caa dem du woon <laughs> waaye ngir wan la moom yàlla sëñ Saaliw itam yàlla nañu ko yàlla fayal muy koo xam ne lu mu la xas féetalee dootu ci wax ak kenn ku yow ginnaaw man la yebaloon rek lu jotati ci taaju foofu moom bu ko yëgee man lay wax wax ci ak man <laughs> waaye yàlla dogal nga xam ne nga xam ne ginnaaw bu fi Taïwan jógee sax ndax bi ñu delloo Chine wax naa la léegi ne la da ngay kenn ci ñoom ñaar ba léegi ku jéggoo moo xam ci ñaar diggante ñaar yooyu eh, damaa ñëw bis ma ndax gañ ngaa dégg sa bokk yooyu ci Chine man ko ah, moom da daa ni sax dañoo far kii ak ndax daa mel ni daal Sénégal daa delloo ak Siin gu mag gële te ñoom ñaar duñ dajee ci benn barab dañoo mënewut lool. mu ah, mu xaw ma ne lu ko lu ko xaw metti lool loo tax ma jàpp ne sax tey woon faaw dañuy dellu si waat Sénégal ndax ginnaaw suñu saa yoo daal mbir mi egg na ko foofu. <laughs> sëñ ma déggee ci sa biir wax dafa mel ne que ab sëriñ même bu fekkee la nga xam ne ni moom la jàng ci wàllu zaayir nii bu ko bu ko jëfewut itam war naa jàng ba xóotal xam-xamam ci lenn loo xam ne nii ëllëg si biir dina ko dina ko mën a jëriñ dara comme li arabe yi di wax yenn saa ilmu kulli shay'in afdalu min jahlihi eh, foofu foofu dafa mel ne fi mu seen tolluwaay lay. waaw waaw an kulli shay'in nag man fii ne maa ngi jàpp ne kulli shay'in mooy sëñ bi rek eh, lépp. Eh, mooy yëngu geeg dal gi daal dañ ko jox sëriñ bi ak sunu ruux ak sunu bëccëg ak sunu guddi ak sunu lépp wan gannaaw loolu moom la loolu daal fii ne mooy ci lañ ci lañ nekk te ci lañ fas yéene nekk fii ak ngi ci kaw suuf incha allah. mu am leneen loo xam ne itam xam naa sama classe bi nga xam ne peut-être yàgg seen at taxut bare gi mel noonu tey bu tuddee sëñ Chérif rek ñoom dañuy jàpp ne sëñ Chérif mooy musée bi mooy musée bi nga xam ne nii euh, ci say projet la bokk projet musée bi fan fan la la commencé ñëw ci sa bopp ak kañ ko commencé xalaat. projet musée bi dafa am yu ko jiitu yu bari wax naa la ne euh, liñ fas yéene mooy yëngu ak daal bi lépp di sëriñ bi am na ci nag ay date yoo xam ne mën nañ ko jàpp ci yëngu yu mel noonu euh, bi nga xam ne mën nañ koo jàpp te mandargaal ko nga xam ne ndax wax naa fii ba tàyyi ne waaw dama ciy bëgg loo xam ne lu ma ci wax mu doon loo xam ne danañ ko mën a firndeel euh, kon taxawaay xëy na bi ci jiitu dañ mën ko firndeel ci loo xam ne luy jëmmal mbirum sëriñ bi la mooy l'an 2000 ci boppam ndax France wax naa la nekkoon naa fa jóge naa fa nag 92 waaye nag teewul sama jaxasoo ñoom mi ngi doon dox bokk tali bi fa nekk ba l'an 2000 ñu ne l'an 2000 étape la ci histoire ndax mooy ñaareelu junni at gënnaaw judd naa juddug seen Isa mu doon at moo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa doon loo xam dafa dafa mel dafa jeexal dafa am phase bu jeex am war tàmbali man leen nag l'an 2000 ñun lañ ko mën a ndax kenn ku ne ngi xalaat nu ngi koy nu ngi koy màggale wala ci mbirum Sëñ Tuubaa dara jiitu ko ci ci lañ taxawaloon semaine culturel boo xam ne defoon nañ ko boo xam ne ci sama mubaadara bopp la woon defoon nañ ko muy kon benn ci taxawaay yi nga xam ne xaw naa jaar ci tànki musée bi la indi musée bi tey bañ def ko l'an 2000 nga xam daanaka li mat ñaar fukki at ëpp na ko sax l'an 2002 Euh, ñu gis ne Serigne Touba bi mu jógee Gabon ba ñibbisi ba l'an 2002 téeméeri at la woon 1902 2002 boobu it ci jamono Serigne Saliou la ma wax ko ne dañoo amoon xalaat de bis bi nga xam ne ci la sëriñ bi ñibbisi woon ren ji lee ma téeméeri at muy le 11 novembre ñu amoon yéene bu ñu ci amee ndigal di jëm koo màggal màggal ko Ndakaaru def ko daal am ci ay taxawaay mun na tekk ba mu yàgg man ma salaw loolu de lu ko mat la daan ma ne Euh, lenn rek laa bëgg ku ma ci dimbali lii sax loolu sax xëy na benn xaw seen lay doon buñ ca yeggee daal li may dégg ñu di ko wax euh, ne dañ koy wax ci rajo yi di wane ne ci sama ndigal dama bëggoon daal lu mel noonu luñ ci defati buñ ca yeggee rek ñu wax ne yëg naa ko te ànd naa ci ndax baatum ndigal daal xam naa di si man lool ndax la fi sëriñ bayoon muy ndigal daal dama caa bëggut a yokk dara te mooy màggal ak gàmm ak yéen demee waaye nag leneen lu ma ci yëg tamit lu war am dinaa ci ànd lii nag ànd naa ci te maa ngi daje ñaan ngeen daje ngeen ma sëñ 11 novembre 2002 ñu def ko Dakar euh, muy ñetti fan yoo xam ne yaakaar naa ne gannaaw ndaje mooma ndaje mu ni tollaat ci yoonu murit ca Dakaaru ci Masalik la amaate kon ñu di ko sant yàlla bu baax loolee itam mubaadara boo man mi la woon ànd ko ñëpp nag ndax kenn nit mënul dara lu ci nekk nag mbooloo mi ak murit yoon yëpp ci ànd euh, loole it am nañ ci tawféex yi sëñ Saliou yemul ci wax nga yem ci waaye yàlla ca yebal na ci sëñ Saliou Touré mu Maxtaar Jaxate mi tey ak jàngkati boppam yi keroog ci foor ba lañ ko doon defee ñoom ñëpp a nga fa kon mel na ne sëriñ bi àndoon naa ak ci baatin ba tax na it na ci ci wàllu muy lu am na jaax lool nag wax naa léegi ne la mooy ndaje mu Masaalikul ko ñaareel ci tolluwaay ci ndaje ci yoonu Murid ci Ndakaar te te 2002 la woon ba euh, Masaalikul di daaw jéeg kon loolu yi mel na sëriñ bi def na ci tafet loolu nag moo indi lii ngay wax ne léegi am na ci diggante bi yeneen yu fi jaar yoo xam ne xëy na teewul ci sama xel waaye daal bi yi bokk na ci taxawaay yi nga xam ni yàlla dogal na maa ko maa ko xalaat yàlla dogal na it dox nañ ko yàlla dogal na it sëriñ bi defal nañ ci tawfiix xëy na loola moo indi 11 novembre jooju itam ni ñu ko defee nag Dakar keroog nii lañ ko defee daanaka ci àdduna bépp ndax def nañ ko ci bis bi Afrique du Sud Johannesburg def ko Espagne def ko Sénégal gi ni ma ko waxee Dakar ak Paris. pare de congrès. def ko itam amerique ci yenn université yi fu mel ne Temple université ak Columbia gi tey kon nga xam ne loolo lu ne lu ni tolluwaat lu dul màggalu Tuubaa ci benn bis ci àdduna bi itam mel na ne bariwul. booba lan bi sëñ bi nga bëggoon wane ci loolu. waaw damaa gis ne sëñ bi maanaam bu ñu ko doon wane bis bi taxut mu doy duñ mën a daj dayoom euh, te téeméeri at day day day lu am solo. Euh, muy xarn kon bu ñu xamee ci mbiram lu ma téeméeri at ndax gis nga màggal Tuubaa gi sax 1995 defe naa def nañ ko bu ñu xamee ci mbiram lu ma téeméeri at day mel ne day jaadu rek euh, koo xam ne ci bis set ci moom nga waroon xëy ci kon bu ma téeméeri at dana jaar nga dana jaar kon mandargaal ko sant ko feeñal ci la nga la nga mën feeñal na boppam ba loolu moo doon xadef bi ci yow jamono. ginnaaw 11 novembre musée bi waa musée bi itam day dugg ci euh, doxin woo mën a junj léegi rek mooy euh, jéemoo ne Sëñ Tuubaa muy loo xam ne nag euh, lu yaatu la loo xam ne dafay matale wax naa ba tey ne Sëñ Tuubaa dafa rey yonent ba nuróole ak moom ci lépp Sëñ Abdou Lahad yàlla ñu yàlla fayal waxoon na ne boo gisee may sonn ci Tuubaa day mooy dama bëgg ku dem Madina xam ne fa la rasulullah nekk waaye ku ñëw Touba xam ne fa la xadimu rasulillahi nekk mu mel ne kon sëñ Touba dafa yonent ba nuróo ak moom lépp ba lu yonent bi am rek dana ko ca rafaatale dara tey ji boo demee turki am na matxaf Topkapi boo xam ne bi dañ fay garder mboolem ndono lu bàyyi ko ci yonent bi te muy doon loo xam ne conservé nañ ko ba tey du turki rek boo demee fu mel ne Qahira ci masjid Seydina Hussein Seydina Hussein amna na fa fu ñu wax al ghurfa an-nabawiyya defena moma tam lañ am ci jeexit yu bayiko ci yonent bi yëpp ñu gis na kon sëñ Tuubaa itam gannaaw dafa doon ñu yonent bi ci lépp di jëwriñam moom war naa am lu mel non lolu moy jalbeentu xalaat bi bi ci topit sëñ Abdou Lahad tudd ko léegi mel ni junj nañu yoon wi ndax bi mu fi nekkee itam mboolem lu mënoon a jot ci barkeelu yu bàyyi ko ci sëriñ bi ci jamono dajale woon na am na ñoo xam ne sax alal ju bari leen jox ngir mën a jot ci lañ yoroon ba fi mu ne boo demee Daara Kaamil fekk lu bokk ci loolu ma jàpp kon ñoom si seen jëf ab joxañ la ab junj la maanaam lu ñu def rek dañuy wane aw yoon ne fii kat fu mot a jëm la kon yaakaar naa ne loolu kon euh, bokk na ci daal yi nga xam ne tax na ñu jàpp lu ñu war a def la teyit damay wax ci lu bari ne du ñu yem rek ci barkeelu yi wante dañuy jàngataat yoon wi ci jawaane bi maanaam yoon bi ba mu sosoog tey lim fi indi lim soppi sëriñ bi ak mag ñoom àndaloon nu ma àndewoon ak ñoom lépp duñ benn genn wet bu ko defee loolu buñ ko mënee dajale fi benn barab na nga xam ne ku ñëwati di gëstu bu fa duggee xam li mu soxlaa xam lépp ci yoonu murid yaakaar naa la tam lu am solo loolu daal daanaka mooy euh, mooy mooy li xam ne moo moo moo moo moo taawu musée bi ak xalaat ñu tuddee musée bi dafa am ñu bari jàpp ne da a xaw a jugum ci choix baat bi. bu ñëwee musée dañuy jàpp ne yëfi tubaab la ak yoo xam ne nii est-ce que du foofu da juum nañ fi wala juumuñu fi wala moo tax nga nga jël moo musée rek. waaw xam nga man boo seetloo ci sama wax nii sax baat yi nga xam ne danaa ko wax ci arab wala tubaab mooy yi nga xam ne xum boo ko bëggee wax ci wolof loolu dama lay san sans sens loolu damaa jàpp ne gannaaw ñi ñuy waxal ñëpp ay wolof rek lañu di ci dugal ay baat yu mel noonu dana kii waaye dafa am yoo xam ne dafa ay lu xaw a yees tuuti. tudul musa sax këru barkel wi la tudd këru barkel wi la waye waye ci ci ak yombal ak bëgg mu gawa jàll ci nopi nit ñi mo tax nak jël musa ndax luñ xam la ba nopi euh wante ñu xam ne kërug barkeelu yi la comme ni même amee këru xasida kon kërug barkel wi moy tur yu dëgg musa xeyna emprunt la rek bo xam day tax ci walu joxe information mu doon lo xam nit ñi dañ doon ko gaaw a dégg waaye kërug barkeelu yi la fexe inshallah am na ñoo xam ne bu ñu dégloo musée bi dañuy jàpp ne tey la nekk bayti wala la nekk ca kër sëñ Touba gi nekk njaareem bu ñëwee loolu lañ fay fekk yow boo ñu dee tënkal yow musée bi ban objectif wala ban vision nga ci am lan nga ñuy leeral xam nga xam nga xam nga man damay wax ne sëñ Touba mérito na lu ma téeméeri musée bayti dafa am musée njaareem am musée waa nag bu ñu fàtte ne eh, sëriñ bi li mu fi bàyyi ci ndoona bari na ci lu tasaaroo lool loo xam ne ab taxawaay moo mën a tax mu a loolu moo moo ñu bu ko defee itam wax naa leen ne objet yi ak euh, ak ak yi nga xam ne mooy bagage yi sëriñ bi ci boppam moo gën a néew ci li musée bi mën a wane doxiinu yoon wi ca njëlbeen ga fi mu ne maanaam bindaat lépp dañuy révisité waat lépp loolu kon barkeel yi ci benn genn wet la ci rek waaye lu matale la lool lool lool wax jox naa fi ay misaal ba tey ci wàllu calligraphie ni ñuy bindee nga xam ne yoon mënatu ko indi ci ci ci ci l'islam ndax barki demb rek fi ne dafa am loo xam tam dañ ko war a dañ ko war a ko war a dañ ko war a defaraat mooy barki dem rek dama seetlu ne juróom-ñaari musée yi ci adduna yi nga xam ne ay musée islamique lañ leen tudde wala bokk l'islam am na fa janaax am na fa cir ci musée mu dee même bu dee ay musée occidentaux l'islam dañ fa wane lépp Afrique amu ci wàll te moo ne Afrique nag ci fii la bokk Afrique noire bokku ci da ngay gis ñun la Maghreb Espagne musulmane Euh, assise Asie centrale Europe centrale gi maanaam maanaam Afrique néew fa. est-ce que nit ku ñuul bokkul ci ci histoire. defe naa nag loolu nun noo war noo ko war weddi euh, dara ji gënu caa gaaw lu dul wane Sëriñ Tuubaa loolu sëriñ bi mu weddi na ko li des nag mooy nu wane ko fu ñu ko mën a wane fu ci fu gën a jekk mi xaw ma loolu rek mooy wax ji bu ko defee nag injustice boobu ma la wax léegi ñu réparé ko xam ne nit ku ñuul tam andi na lu bari ci apport. ci li ñuy wax alfannul islam loo xam ne eh, nit ku nit ñu ñuul ñu ne ci l'islam ñoo ko produire ci wàllu art ak ak artisanat loo xam ne war na ko mën a wane war naa mën a participer ci rendez-vous du donner et du recevoir nañu ko waxee maanaam musée yi boo dematee bu ñu nee eh, lii art la Afrique war maanaam touche africaine war na fa nekk te loolu sëñ Touba ko am na du sax du sax eh, sëñ Touba rek waaye xëy na mooy doon tàmbali bi ngir ñu jàll feneen ndax boo demee Niger dem Nigéria ak feneen bari na fa. kon loolu ci sunu càggante la bokk ñun ñun ñun ñi ba tax fi ñuy wanee euh, gànjarul islam ci wàllu aada ak cosaan teewagun fa ba léegi. te loolu musée bi mën tax ñu teew. waaw tàmbali lay doon naa bu bu musée bi taxawoon kenn dootu nattable ne loolu am na wala am bu dafay dafay dafay dafay law ba cari egg foofu yi ñu wax lépp te mooy juróom-ñaari musée yi nga xam ñoo gën a majeur ci luy wane art islamique waxu musée beeg coowul léeg yu mel noonu daa ñëw ci jamono yoo xam ne fëlëx fëlëx yooyu daa xaw a bëri lool mu mel ne euh, am na ñoo xam dañoo jàpp ne yow da nga ciy wut aw tur wala daa daa am loo ci bëgg luñ naan buzz wala yeneen yu mel noonu te du ma déggee ki sa biir wax day mel ne datewul ci sëñ Muntaxa du ci sëñ Sidi Moxtaar ba ci sëñ Saaliw laay dégg man ngay ngay ngay remonté mhm. foofu laa bëggoon nga ñëw fi tuuti. yaakaar naa ne kon loolu tontu na laaj bi ndax ginnaaw l'an 2000 ñaar fukki at la ak benn def naa ci ren kon mel na ne bi may wut bës xam naa yàgg tuuti kon euh, dëgg la nag bës sax wut ko ci lu baax ba ayut waaye daal ñu xam ne kon xëy na euh, trajectoire moo moo moo indi bañ egsi fii rek waaye yàlla doo yàlla dogal na wax dëgg yàlla yàgg na ci ci ci luy luy wane ne sëñ moom mën su ko yokkal dara waaye nag li indi nag ñu fexe ba àdduna xam ko ngir mën koo jëriñoo loolu itam am na solo loolu rek mooy mooy mooy mooy loolu rek moo tax musée bi jóg. boo ñu doon wax tolluwaay bi fan nga toll ci liggéey beeg démarche yeeg yooyu fan lay lan doon. waaw euh, liggéey bi moom taxawul boobaak léegi ndax euh, am na ay mbootaay yu ñu def yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey bu baax baax baax ci wàllu xam-xam am na commission scientifique boo xam ne ñu ngi liggéey guddeeg bëccëg noppaluñu euh, day loo xam ne nag nattu biñ ci am mooy du lu du lu mënees gaaw a wane ndax loo xam ne xaalis bu baree koy def. te itam dang ci yag lool door ne man li moy tàmbali bi lool du du mëna gaaw waye dañu xamné taxawuñ te fasuñ ci yéné taxaw fé feeg jotuñu leneen digal euh ndax xass nañ am digul sëñ touba kon li ñuy def rek moy dox jëm ci ak di sét nu mi mëna amé ci fofu dal lañ toll waye na ñëpp xamné te dal seen xel ne taxawuñ te ñu ngi ciy def liñ mën te incha allah balaa yàgg ci gis ay mandarga yu war a war incha allah. souvent genre naal yu melni ñi nga xamné dañu xaw pessimiste xaw melni man. dañuy jàpp ne faisabilité bi warut a mën a nekk nga xam ne boo nee musée nga xam ne nga wax ay ñetti téeméeri at nga di ko méngaleeg juróomi musée yooyu nga wax loolu sànq loolu ay ay xaalis yu ndaw yi da koo defarul. léegi fan ngeen di ko ba mën a am xaalis bu ko defar ak ak yooyu noonu. dëgg la waaye musée tam tàmbali wutoon foofa moom itam daa dox ba egg fa rek maanaam wàññi bu ne ci ban lay tàmbalee te itam eh, wax nañ ne jumaa ji bi ko sëñ Modou Moustapha di tàmbali eh, am nañu doon wax sax naan lii ki su ko sakket sakketu ngeer sax bu Euh, université bi noonu 37 milliards bëgg démb la woon te daanaka lee mu noppi incha allah masalikul jinaan noonu feneen foofu rek la ñuy teg suñu tànk wanee ne ginnaaw yoon wi xamaguñ lu ñu fi tàmbali te eggul euh, te lu ci nekk moo ëpp li ñuy wax ñett yooyu yëpp moo ëpp li ñuy wax ci misaal yi ma joxe rek kon dañuy jàppan rek rafet njortu te dox jëm ci lay doon ndax sëriñ moom boo doxee jëm ci moom bu dee lum nangu day gàddu coono ba jox la ndam ñu yàpp na mu ko daan defee rek la ko defee ñun ndax pas-pas boobu la ñu am suñu diggante moom mu sotti ak mu bañ a sotti daanaka ñoo am ci ñun ndax man xam naa ne sëñ Touba xam na sama pas-pas ci liggéey bi te loolu doy na bu yeggee la ma bëggoon am na bu yeggut itam sëriñ jëmmi sëriñ Touba moom xam naa ne seere na ne ixlaas gu mat sëkk ak bëgg ko liggéeyal dong laaj jiw feeg nag may am ndigalul leneen moom damay dox jëm ci incha allah wala mooy liñ ci mën a wax waxi musée bi de kenn mënu cee waxtaan te te du tuddoo Akon ndaxte daanaka presque boo boo tàppee woon ci internet bi musée Touba wala yu mel noonu turu Akon day génn parce que dimension internationale bi bi artiste bi am la sa digganteek moom ak ak ak ak ni mu def ba xam projet bi nan mën nga ñu ko expliquer. waaw euh, Alioune Thiam ñu di ko wax Akon euh, yàlla dafa dogal euh, ba may xamante way juram ñu di ko wax Mor Thiam booba defe naa ne ci amul fukki at moom. kon tàmbaleegul woon a yëngu ci yooyu muy yëngu mu jàpp ko la rek lay mat fanweeri at du ñëw Sénégal mukk ndax Amérique la nekk du ñëw Sénégal mukk te ñëwut seet si moom du ma fa dem te seeti moom gannaaw bi nag la Aliou dugg ci yooyu muy def ay daaw yàlla dogal moor ñëw ci seet si ma ànd ak moom bu ñëwee moor ca am ne ma moom de dafa am dëkk bu mu bëgg a defar fële ci wetu mbuur bëgg cee wane taarub Afrique ak yu mel noonu bëgg nañ faa def sax mbirum sëñ Touba ma ne ko ah loolu nag moom jiit nañ leen ci ndax am nañ digalu def musée Touba lenn daal mooy li mën a am bu fekkee ne ay taalibe sëñ Touba ngeen te bëgg koo liggéeyal daal te bëgg def ci musée moom fii moom am na fu ñu mën a def loolu moo ci indi Alioune Thiam bàyyam di taalibe sëñ Abdou Lahad sëñ Sidi sëñ mooy sëriñam moom it mu juddu wax ne murid la nun ñi fi toog ñëpp it gisaguma ku waxagum lu ëpp ne murid laa nangul sëñ Tuubaa nag mooy xam kuy murit loolu moo tax bi mu ne dana ci def ñu ne ko bisimilah talal ko loxo ba fi may waxee ak yow it defu ci dara dara dara ko ci ma am lu ma waxoon itam loo xam ne ñu bëree bëri ginnaaw bi xaw nañ ma ko loolu dama àggoo ci laaj waaye danaa ko leeral mooy dañ dañ maa wax ne mais dangaa wax ne Alioune eh, Mor Thiam yow wane gi nga daan wane sëñ Tuubaa ci Amérique lala sëriñ bi fay sa doom man leen loola ba fi mu ne tey laa ko gën a wax bi moom boo yëkkatee aw turam mu yëkkati saw nang koy jëfandikoo nag day dellu ci yow day des ci yow man maanaam man tey jii man na maa dem sëñ Muntaxa mu seexal ma jox ma ay bi ñu dama jox lu jeex na ma koy jëfandikoo nag loolu man a du sëñ Muntaxa kon bu fekkee ne moom la muy def am na ñu jàpp ne baaxul teewul tur bi ak suhra bi moom sëñ Touba ko defal ndax ndax baayam nee na dafa daan jéem a wane sëñ Touba ci Amérique 1967. loolu ku ko def faw Sëñ Tuubaa wane la bu la wane nag na ngay jariñoo wane ga loolu moom ku nekk yaay seet la loolu doy nga def ko la muy def baax na ak baaxut loolu du ma ko jugé sama yoon newu ci waaye siiwal gi moom ba léegi maa ngi gëm ne Sëñ Tuubaa ko may te duma ma ci dalu gannaaw. Akon eh, bu andi woon xaalisam fi mu nekk nii bëgg koo def ci musée bi recevable na pour ñu dugal ko ci malgré coow yi am ak yëpp. lépp nattukaay bi ma yor daal ci ab murit mooy mu ne taalibu Sëñ Tuubaa la boo xasee na taal bi sëñ Tuubaa la daal ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa nga indi def ci du duñ la ko bañ waxuma rek muy école wala kum mën a doon rek. kon li valable ci moom moo valable ci taalibe yëpp. daal ku ne murid laa ku yor sa juróomi sax bëgg cee ne murid laa daal te am loo ciy def boo ko nee def ko ci. Mm-hmm. léegi foofu foofu bëgg naa ñu dugg fi léegi ki nga xam ne tey ma nga toog di la seetaan nii tey bëggoon a jël xaalisam wala dooleem wala dara bëgg koo def ci musée bi fi mu nekk nii ndax pare nañ pour am structure yoo xam ne mën naa jël euh, xaalis yooyu nit ñooñu main d'œuvre boobu ndax amagum na toll liggéey musée bi toll na foofu. fi mu nekk waaw waaw am nañ ubbi nañ sax ay compte nga xam nga bi ñu defee euh, centenaire bi ba noppi yàlla dafa dogal ñu euh, ndax centenaire mooy xarnu xarnu. baatub arab la waaye daanaka dafa dafa mujj sax ñu muridise ko daanaka xarnu bi sëñ Moussa Ka sax def na ci xasida gudd ñu ne euh, nu bi kon mbootaay gi waroon taxaw nañ ko far tudde xarnu bi daal di ci def benn association association boobu am récépissé am kayit ci lañ ubbi compte bancaire compte bancaire googu moom kon euh, xarnu bi association xarnu boobu moo porté liggéeyu musée maanaam xaalis bi li ci nit di joxe du duñ ko def ci sama tur duñ ko def ci wenn tur ci turu xarnu bi lañ ko def te xarnu bi tam ci moomeelu suñu muntaxaa xaala bokk te itam euh, lu fa dugg tam ay signature ko fay génn maanaam man bu ma ci bëggoon a jël te dara du sotti maanaam teg nañ ko ci nos nañ ko nosin boo xam ne dara luy nuru ay ak ak lu ndam mënu ci am. léegi musée bi mën nañoo xëy xëy dakkal ko wala non maanaam faisabilité bi. am gi ba fi mu toll nii lu sax la wala wala man na ko. waaw musée bi euh, lenn rek moo mën a teem sax mooy sëñ Muntaxa woo ma ne ma te ko fi suuf bu boobaa kenn du ko déggati waaye bu dul loolu moom gisuma leneen lu mën a tax euh, duñ dox jëm ci ba ñu jot leneen digal noonu rek la toll teewul nag ñu jàpp ne musée bi yoon wi yanoo na ni ma yoon na ni ma ko waxee léegi téeméer musée bu keneen naanoon beneen koy nangul waaye du tee ñu nit ñu dox ci li ñu dox ndax bokkuñu yaakaar naa fu ñu jëm ndax bu fekkee ne mbirum barkeelu la wala mbirum leneen xëy nag gann fànn lay lay lay jël ñun nag lu ñuy def day lu xaw a transversal maanaam day ëmbaale yoon wépp damay ragal ne sax murit bi nga xam ne sax musique maanaam xalaat bi jubóo ko sax faaw musique bi yóbbaale ko gannaaw murit la rek ni ma koy misaal day mel ne duusu géej yoo xam ne daal li mu romb da ko yóbbaale ku di murit daal duusu bi dana la yóbbaale nga nga nangu nga bañ a nangu gannaaw Sëñ Tuubaa nga yaakaar rek danañ wax danañ la wane

te mooy damaa am tool bu ma daan bay fii di ko yët Sëñ Saaliw fii ci yoonu njurul waa kër kàbb ñoo ma ci daan jàppale ci mbay mi sëriñ bi it ma ko masaan jox mbay mi ndax gerte laan doon buñ ko jaayee boole ngooñ maak lépp def ko xaalis dana gis ne doowul am solo sax ci lim bi doowul am solo waaye dana ko fonk fonkeel goo xam ne dana ma woon ne yëg naa li nga def moom Sëñ Saaliw bis ma dem fekk ko njurul ne ko suuf si fi ma daan béy di la ko indil de bu fekkee àgg nañ fa ci natt buñ ma ko mënee euh, jox ma di ko barkeeloo mu ne waaw foofu da ngay dem ci boo demee nga wax ko mewndu ma dem wax ko suñ mewndu waaye yàlla dogal booba jëmaguñu woon foofa ba ci jamono alaj baar bis laa xëy euh, ñuy ñuy alaj baar rek mu ne ma wetti njurul googu sax dañu koy nat da nga boo demee ñu jox la fa ay pakk moo ñëw dem ci euh, bajaan mi nga xam ne moo yor natt bi bima ma egsi daanaka ña fa jiitu ci laa bokk mu won ma foo xam ci Touba la la sës sama xel dem ci la ma waxoon Sëñ Saliou ak barab ma ne ko nag léegi li de bu fekkee da ngeen àgg fële ci kaw dama bëggoon bu ñu fekkee ñu jox ma ko ndax ñu jox ñu dagal ma foofu ndax waxoon naa ko Sëñ Saliou sax ba mu boole ma Mamadou waaye egg guñ fa woon ci nat ndax dama koy barkeeloo ndax dama fa daan bayal Sëñ Touba di ko ginnaaw bi ma yëg ne bi du egg foofu ndax loolu ci kër kàbb la bokk ma dem wax ko Alaaji Baare mu ne ma kon da ngay dem ci sëñ Axma ndax atteb kër kàbbu ci moom la rek sëñ Axma Muxtaar moom sëñ Muru Musaa xarit sëñ sëñ Muru Musaa ma wax ko ko mu delloo ma tool tool boobee nag euh, bërki démb bi ma demee ci sëñ bi man laa ko ne léegi dama ko bëgg def addee sëñ Tuubaa bu fekkee joxe nga ndigal ñu def musée bi mu ne ma jox naa la ci ndigal kon daal fi mu toll nii loolu la jàpp ba léegi nag euh, doonagul lu lu lu dog ndax man li ma gënal ba léegi gis nga boo ñëwee fi sax gis ko ci euh, am na fi mandarga mooy dama daan wax ne naka jekk musée bi wala këru barkeel yi buñ sañoon am fu yaatu foo xam ne day yóbbaale wàllu euh, njëmbat mi wàllu garab yi. xam man loolu daa bokk ci sama dama jàpp ne dëkk bi boo gisee fii ni mel xam loolu moom laa ci jublu dëkk bi am fu mu noyee. souvent damay gis ne am yoo xam ne ci biir yoon wi day nuru ak xëccoo yenn saa yi da ngay ba dégg dara mu ñelaw kenn mësu ko wax waaye bu xasee dégg kenn wax ko rek. nga gis mel ne daa mel ne mbooloo ko bëggoon wala projet bu mbooloo la woon loolu lan moo ko waral. waaw man nag loolu yàlla dimbali na ma ci ba fi mu ne musée bi wax nga léegi ne ndax mën nañ koo bàyyi waaw mën nañ koo bàyyi niñ koy bàyyee mooy wax naa léegi ne suñ muntaxaan nañ ko bàyyi wala boog koo xam ne musée ngi woon ci xelam mu bëgg koo def indi ndigal loo xam ne moo antérieur ndigal loo xam ne mën naa ànd ak preuve ne moom moo ñu jiitule moo ñu mag ndigal. ku ko defoon tay tey ma topp sa ñu doxal mi waye nak eh, ci ndigal li nga xam dal seigne touba ko joxe mu seigne sëñ Sidi Muxtaar muntaha ci lo xamne luñu mëna firndel ndax mi ngi ci YouTube bi te dal dot dat bi nga ko publier da ciy nekk eh, gisaguma lu mag lolu fek gisumako nak damay japp ni kenn gënu ma ci dox ku ñew nak bis andi lu gëna ancien loolu maanaam lu gëna yag lolu ci saa lay laay top signal non rek la toll xam naa foofu la defe defee transition dugg nag ci sa diggante ak ak ñi nga bokkal sëñ Fallou mooy sa say say mbokk ak ñi nga bokkal sëñ Touba yéen relation la sëñ Chérif am ak ñi mu bokkal sëñ Fallou ak ak ñi sant Mbàkke wala ay mbokkam ci boppam. njabootu sëñ Touba moom yàlla da leen dimbalee maanaam toppante rek toppante kuy sa kilifa nga def ko kilifa la war ci sa diggante moom ci worma akuk topp ak dox ci ndigal nga di ko def loolu daal ci lañ fa yéene sax. képp kuñ bokkal suñ Tuubaa daal te nga féetuñu ci waat jàpp nañu sax ñëpp suñu kilifa lañ waaye rawatina ñi nga xam ne ñoo ñëpp at kum ci mën a doon daal bu ñu la gisee jàppale suñ Tuubaa mu bokk ci kër Sëñ Fallu mu bokk ci geneen kër ci noonu nañ ko gisee. man gis-gis nga am tey ci ci doxinu Touba ak tolluwaay bi fi mu nii. damaa jàpp ne lu suñ borom fay suñ Touba la rek ndax kan xamagul ci taarix lu mel ni lu mel ni Touba dëkk boo xam daanaka ci téeméeri la toll mel nii mu mel àgg fi mu egg ñu ne mooy ñaareelu dëkk ci Sénégal te dëkk yu dëkk yu ko mag ëpp na junni loolu kiimaan la boo xam ne ci diggante Sëñ Tuubaa ak borom yaakaar naa ne noonu noonu laa ko gisee. sëñ ak politique. politique nag moom wax dëgg dama ci jëmagut xëy na daa jotagut waaye wax dëgg yàlla daal eh, li ma la wax léegi ci ñaar benn wax gi rek mooy jë yëngu gi ak dal daal fi ñu toll nii damaa jàpp ne dara waru ci génn Sëñ doxin wi ñuy dox ak ak nii ñuy def mën nañoo yóbbu ci benn réussite boo xam ne xalaatuñ ko woon ñun ci jamono ji ñu toll. doxinu ci lan maanaam. ci maanaam perspective yi ñu nekk nii maanaam ci éducation ci santé ak yu mel noonu fii ci kanam tuuti nga am jàpp nga ni buñ ko jubbantiwul fii ci kanam du baax. wala lancé bi ñu jël baax na daal suñu tubaab dañoo noppal li mu noppalee mooy dañoo rëddal aw yoon leer nañ eh, li nu sonal nag mooy bàyyi gi ko fa bàyyi di seet leen. waaye buñ bëggee noppalu daal dañuy dellu si ci njàngaleem sëriñ bi xam ne moo mën a defar suñu tey ak suñu lépp buñ ko defee rek amut lu ñuy tiit ci li ñëw ndax li ñëw moom suñu borom da nga ko xam te dara du du mënta taxaw ci kanam buñ ko yaakaaree dellu ci moom te jëfandikoo ndigal sëriñ tuba daal suñu tey ju ne day dàq suñu dem ba faw loolu mooy sama mooy sama loolu la gëm. ndaw li toog këram di la seetaan bëgg roy sëñ Chérif topp ay tànkam yan yan mooy base yi nga xam ne nii moom la war a njëkk a consolider ngir mën a mel na yow. man jàpp naa jagaguma moo tax maanaam naa ne man dama war wut royukaay fii ne di ci di ci kii ba tax na mënuma xam yaakaar naa ne ndaw yi dañ maa war a jéem a gën. waaye doo leen jox benn conseil boo xam ne ñoom fa la ñuy teg conseil mooy mooy mooy conseil yi moom xam nga eh, laabéri gi daal mooy. Eh, nañ jéem a tënkuwaat ci njàngaleem Sëñ Tuubaa te njàngaleem Sëñ Tuubaa am nañ ci lu leer ndax Sëñ Muntaxaa fi mi fi nekk yàlla na fi yàgg te wér saa su ne mu fàttali leen mu fàttali leen nin war a doxee suñu diggante ak sëñ ci anam gu leer gu yomb xam te yomb jàpp kon li ci des ci nun la waaye du ci sëriñ bi du ci ñim fi bàyyi moom kon nañ ci tënku noonu ñëpp rek fekkee am nga kàddu yooyu tënk ak looy su ko defee ñu jéem a xool site dem ci daara ji ak euh, musée baak yooyu noonu topp la ba xam topp say tànk ñun <laughs> di leen sant rek di gërëm bu baax baax baax rek di ñaan suñu borom barkeel seen liggéey te ko ndax lii tam am na solo lool donte li ma fi wax solo it xëy na bis da ngeen daje koo xam ne la muy wax dana am njëriñ euh, ndax ne ngeen mooy émission bu njëkk kon nag yàlla na ko yàlla barkeel te jëmale ko kanam te defal leen ci ndam euh, te daje ci ak ngërëmul Sëñ Tuubaa jërë ma tànki jaayu baax ya aw ku topp tànki gaay baax ya dooreer ku topp tànki gaay yu réer yéex dinga réer ku topp tànki waa baax boo jotul du tee mu raw bu ku ko deful ku bëgg a raw na topp tànki sëñ beeb ku bëgg a desi naaw na roy tubaab bi ku bëgg a raw na topp tànki sëriñ beeb ku bëgg a desi naaw na roy tubaab bi ñoo ngi fii ci site bi nga xam ne moom la leen wax ci biir waxtaan bi moom mooy ñaari hectares yi mu am kër kab bu nga xam ne ay toolam la woon fii la ñu fas yéenee def pour le moment li nga xam ne moom mooy euh, musée bi nga xam ne moom la sëñ Chérif Mbacké euh, sumb mi ngi envisagé nag yokk li nga xam moo di site bi waaye fii moo gën a jàpp ne ngir buñ bëggee jënd yeneen pàkk ngir yokk ko ak yu mel noonu doon nañ dégg nag yeneen site yoo xam ne nii ñu ngi wax ne xalif général des mourides joxe woon na ko mais ci ab tënk daal moom sëñ Chérif lañ àndal fii fi nga xam ne moom mooy site bi di ay toolam yoo xam ne moo ko moom nga xam ne tey ji buñ ne woon tey ji euh, xeeru wi wiñ war a teg ngir tàmbali musée bi bi fu ñu koy teg fii ci parc bi ñu taxaw nii foofu la ñuy ñëw daal di teg li nga xam ne moom moo di musée bi kon xam naa dañuy àndaat ak sëñ bi mu joxal ñu joxaat ñu yenn yoo xam ne dina gën a leeral ba xam euh, site bi ak euh, emplacement beeg accès bi ak ni mu xawee isolé wu presque 6 kilomètres la grande mosquée euh, kon xam naa dañuy dem xool rek sëñ bi laaj ko li nga xam ne moom moo di bërëb bi nga xam ne fi la ñu taxaw ku topp tànki waaju baax boo du teemu raw bu ko deful gis nañ ni que lu baree bari loo xam ne ni mi ngi ci yoon wi ay ay bërëb yu symbolique dañ ko xaw a concentré fële isolé gi mu xaw a isolé wu génn dëkk bi tuuti ban impact la mën a def ci musée bi ak accès bi surtout waaw maanaam euh, génn boo xool am solo ndax euh, li la jëlee ci deux voies indi fi xam naa ay ñetti kilomètres lay toll beneen bi xaw gee yaatu nii dina maye bu fekkee fii doyut bu fekkoon dañuy jëndaat war cee dolli defe naa jënd fii mooy gën a jàppandi liñ liñ suñu yéene mooy mu ëpp lii ñaari hectare wala lu ci topp li nga gis nii mooy terrain hmm. beneen bi mooy mbeddu ah. cent vingt mètres naa mooy jaar fii fii poto yi hmm. te autoroute lay doon xam na kon ku jógee Dakar wala aéroport wala feneen ah, ah, daanaka ci autoroute lay jaar ba ci musique waaw ña cent vingt mètres moo nekk te dañ koy def deux fois deux voies wala dafa nekk deux fois trois. Mm, nga xam ne problème mu accès du posé wu. incha allah loolu dina yomb lool. mais tamit euh, peut-être bu sëñ bi tànnoon beneen beneen beneen site bu gën a yaatu. waaw wala bu bu am ndigal rek. ndigal li moom mooy moo jiitu mooy mooy moo moo am priorité. Mm. nañ ba pexe amul nag fii moom euh, man moom te jox naa ko sëñ Tuubaa mm, pour le moment daal moom fii lañ jàppandeegum daal. lu jëm si plan yeeg. architecture beeg yooyu ndax yooyu rëdd nañ ko ba pare. noppi na bu yàgg ak maquette yeeg yëpp pare na yàgg yàgg waaw. nga xam ne fi nekk nii buñ bu fekkoon sëñ bi joxe na ndigal ba pare xëy na boole ko ko teg ndax euh, bi rëy na rëy goo xam ne hmm. ñun am na luñ jot a dajale solo waaye loolu defe naa mën nañ cee tàmbali teg hmm. loolu nag mi ngi jógee ci ay xameek yenn bokk taalibeek tax a gu ko am solo ay mën nañ cee tàmbali daal. Hmm. xëy na daal li ci des mooy demaat ci moom yes lu ndigal rek jàpp bis incha allah. tey ku ku globalu projet bi tey bu ñu doon xayma ba keroog muy pare bañ def ci bagage yi ba mën nit mën a ñëw visiter ne lii ab musée la ndax xayma nga ko si ay koppar. étude moom li ñu joxee gun woon mooy fukki fukk ñett ba fukk juróom ci ay waaye ñu ngi xool nañ ko xoolee. waaw mu gën lu gën a modeste na ndax jamono itam. mën neexut waaw. te mën na mën naa nekk itam loo xam par étape lay doon mën nañoo njëkkee département bi nga xam ne mbirum Sëñ Touba rek a fay nekk bu noppee nag mën a mën a mën a mën a mën a greffé yeneen yi ci ci ci ci kanam boobu boobu fu mu bëgg mu egg fu mu egg incha allah. Hmm. mbirum musée nekk na loo xam ne kon continuité la ci 300 ans ñaan nañ yàlla mu romb lu ko raw est-ce que loolu programme ngeen ko ci architecture beeg tabax beeg. yooyu nga xam ne day méngoog jamono ba saa su ne. bu baax a baax a baax sax maanaam daanaka euh, architecture moom li xam-xam mayeegun ci wàllu googu moom li ci mujj ci lañ ko ci lañ ko ci lañ ko kii bu noppi méngale ko itam. ak architecture islamique maanaam boo ko xoolee da nga xam ne li mbirum lislaam mhm. tey lu mel nii tey bu état pare woon tey ngir dugal ci loxoom ndax di ngeen ko jàppandal. état da cee war dugal loxoom da cee dugal loxoom ndaxte projet yoon mu projet national la maanaam eh, ndax wax naa ba tey ne niñ ko defee fi war nañ koo mën a def sax ci yeneen kër diine li ñuy wax euh, day booster li ñuy wax tourisme religieux te loolu dafa nekk daanaka en vogue maanaam luy dellu si waat la lu bëree bëri ci wàllu tourisme mhm. loo xam lu xaw a bees la. ndax boo xoolee tourisme Sénégal ni ma ko daan waxee naka jëkk mooy ba léegi ci mbirum li ñuy wax balnéaire rek la maanaam ndox ak ay fu féex ak yooyu waaye découverte ak tourisme boo xam da ngay dugg ci réew mi di xam li fi xew bare gu fi te tam dañ ko Sénégal riche na riche boo xam ne war nañ ko mën wax wane yenn genre bërëb yu mel noonu tey boo fi indee nit pour ñu visiter yenn kii daanaka boo ko yóbboo jumaaje yóbbu ko daaray kaamil da ngay daal di mel ne ko xaw a jeexal waaw lii nag bu fii nag bu noppi woon daanaka ndax yooyu yëpp day ne ci biir musée bi wax naa la nekk musée bi day am sumuliya maanaam li yoonu murid day matal bu ko defé jumaa ji sax dañ ko dafay am en miniature daara kamel daf fi nekk en miniature ndiaram daf fi nekk maanaam duñ bàyyi ben ben ben ben palanteer. tay du yam ji fu sëñ Touba yaa melni deg na la sa bir wax nga ne njabotam gi maanaam sëñ Modou Moustapha. ku nek de ku nek de am département. waaw lam def ak ay ay ay ay lam liggéey sëñ Touba fam jaar ak jaay lepp lepp lepp lepp duñ bàyyi lenn lenn lenn. noonu ko sànq nee nga nee nga état bu war da see war a dugal loxo mais est-ce que mës ngaa def benn démarche boo xam ne day nuru ne yow yombal nga état bu fekkoon parce que genre yu mel nii peut-être mën nañ ci am information parce que ñoom dañuy informé wu mais tamit mën nañoo jàpp ne itam projet euh, individuel la boo xam ne nii yow rek yaa koy réalisé est-ce que mës nga def benn démarche jëm ci loolu. waaw projet communauté la maanaam musée bi yoonu murid ma ko moom suñu Muntaxa ma ko moom teewul nag état war na cee def ndax ni ma ko léegi dafa am ci kaw. bu ñu ko defoon dafa am ay retombées économiques yoo xam ne du yem ci Touba rek mhm. benn touriste buy ñëw Sénégal te ñëwul fii du am booba te loolu day indi ay ay ay ci wàllu économie day day dundal ab dëkk te damay fàttali ne ni ñu ci dimbaliwaat te muy lu bees mooy infrastructure yi ñu fi def muy autoroute bi masalan mhm. léegi jóge aéroport ñëw ci musée bi moo gën a yomb jóge aéroport dem Dakar kon ku jóge bitim réew sax mën naa ñëw visiter musée bi ci door a dem fu mu ñu dal wala jaaree nii jaaraat nii yéegaat waxtu bokk na ci li tax ñu war a encourager mhm. euh, musée bi ndax dafay dafay yaatal te dafay am day lu am solo ci àdduna bi rawatina Sénégal mhm. bokk na ci dëkk yi nga xam ne ci Afrique ñoo ci jiitu ci wàllu tourisme ku bagaral na topp tànki sëñ beeb ku bëgg a dee ginnaaw noro tubaab bi ginnaaw bu ñu jógee ci site bi musée bi ñoo ngi fii tey ci daara ji daara ji ndax mën nañoo xam ban année nga ko créé ak ni ko bàyyee nii mu xaw a doon daara cosaan sa càkkutéef la wala moyens yi ñoo toll foofu. waaw daara ji euh, dafa mel ne deux mille deux mille la tàmbali. 2004 la tàmbali waaye jamono yoo nag Saalum la nekkoon Saalum laa nekkoon ci dëkk bu ñuy wax Touba Thiarène ñooñu fa ne sax daanaka ñu ci bëri léegi ay mag lañ ba dellu lañ foofu nag dafa dafa doon daara joo xam dañoo di jàng ak di liggéey di bay Touba Thiarène ci ginnaaw Koungheul ci ak Lour fu ñuy wax Lour ak Ribo ak yooyu dëkk yooyu sori na lool fa lañ nekkoon ba euh, daanaka 2010 ñu delloo si ko fii Euh, fa Touba fële Ndindi la njëkkoon nekk ba gannaaw bi nag xam naa fii ci juróomi at lay toll fi ñu ko santaate ndax njëkkoon nañu ko sant teñ ñi fi newoon ñu jël leen ñëpp yóbbu leen Saloum ñu def fa lu mat ay juróomi at juróom soog a dellu si waat nekk bi ñu fi ñëwaatee rek juróomi at lay toll waaw nag ñi fi nekk ñëpp jàng rek lañuy ñuy def ay amul ay tool amul dara jàng jàng ca cosaan nañ ko xamee woon noonu nga delloo si waat lu ko waral. waaw xam nga daanaka moom ginnaaw loolaay cosaan te itam eh, yaakaar naa liñ bëgg a def ci gone yi eh, loola foofu la gën a gaaw te itam daanaka eh, bu dee ci wàllu xam-xam àdduna léegi moom li ci nit ki bëgg a xam mën na koo xam ci diir bu gàtt. jamono dafa dox ba nit ki mën naa jàng alxuraan mokkal jàng xasida def li muy def lépp. te di te dara du ko raw ci wàllu kon moo tax daanaka njëkk gi jëru kon li ñuy jéem a def mooy jëmbat ci ñoom euh, melokaan yi nga xam ne mooy melokaani cosaan ni ko sëñ bi daan defee bu ci kanamee nag ku ci dem ba gimmi nag bëgg a xam mbiru àdduna loolu du jafe incha allah loolu tax daanaka côté wàllu traditionnel gi daal dong dong lañ defagum fi mu toll ma jàng alxuraan jàng xasida bind kaamil xasida itam xam dañ koy dañ koy euh, xam-xam itam dañ koy dañ koy ndax ci euh, bis buñ koy fekk ñu meen ko nga xam ne dana fàttaliku gi dana yomb xam nga masalan boo boo jàngee uh, faratee julli ak sunna yooyu boo ko mokkalee fàttaliku gi day gën a yomb ci ñu jàngal la ko nii nga dem moo tax téere yooyu téere sëñ bi te du sixaat te du suba yooyu yëpp dañuy tàmbali di ko jàng ci day boo mokkal comme ni ñu mokkale alxuraan ngir bëgg a saxal loolu seen xel seen xel waaw gis na sànq sa biir wax ne nga saalum la daara ji nekkoon foofu xëy na ci ci biir àll bi la mën nañoo bay dundee mais fii ñu ci biir dëkk bi daanaka nan nan la taalibe di dundee. solo ndax daanaka mën naa ne li daan bay du du leen yóbbu ñaari weer di des ci at mi lépp da nga defi pexe rek di yóbbu fii nag moom yàlla dogal na duñu duñ liggéeyuñ te amul ci kenn ku yelwaan itam eh, loolu nag bu day dellu ci li ma la waxoon duñ rek nekkee fee mooy xéwli sëñ Tuubaa moo bari rek bi ñuy door a ñëw sëñ Mor mi yàlla seere seere yàlla moom laa leen dénkoon. fii ci këram lañ leen naan toggale di indi waaye fi mu toll nii dañoo mujj wut uh, waruwaay boo xam ne ndax dama ko ne uh, bi ma lay denk gone yi dañoon ay gone yu ndaw ndaw léegi mënuñu woon di jël si en agraire léegi nag gannaaw xaw nañu gimmi tuuti dama lay wàcc bi ñu bi jàkk ji laa ko wax keroog ci ci màggalu Kazu rek léegi nga xam ne kon dañuy defaree foofa kii di indi bis bu set uh, Touba dafa am sama maam ju fi nekkoon di ñuy wax Soxna Awa Demba ture Soxna Awa Demba Touré dafa bokkoon ci waa sax nekk njaareem ci kër bi yàlla dogal ginnaaw sëriñ bi nag xam naa daal sëñ Mourou Moussa wala sëñ am na koo ceebal mu ne fii ci fekk sëñ ma sëñ ma sëñ ma sëñ ma sëñ ma sëñ ma Kumba Kebe la ci sëñ Mor mi toog léegi kii ab sëtam la soxna si nag moom la nekkaloon fii wax nañ ni eh, ci njabootu sëñ Tuubaa gi bu dul sëñ Mourou Moussa wala sëñ Fall waxoon ko ne ko soxna si suñu wajur la lépp loo xam ne na na namati nga ko nu ko andil jox ko ko moom euh, boo ko joxee mel nañ jox ko kenn moo fi newoon yàlla dafa dogal nag amul woon njaboot ci ci kër ku baax ki mook sama maam bi jur sama wayjur jigéen nag ñoo bokk ndey ak baay bi nag dañ euh, ma dañ ma koo joxoon daanaka loolu moo waral fii ñëw naa fi nekk naa fi lu yàgg te dalu ma jàng soxna si nag gannaaw bi suñ soñ bi yóbbu ko ci këram fa la wàcce at bi sax at yu mujj yëpp am na fa fukki at juróom defe naa ndax moom itam dañoo ak bokk ci wàllu mbokku kër ndey ak yooyu fa la nekkoon ba ni mu làqoo cosaan loolee nag moom laa doon topp si moom indi ci barab bi bi ma ñëwee dem fekk suñ mor ñoom ñu yaatal bu baax ndax ñoom ñooy borom waa dëkk bi soxna si ma xam ne mënuma koo defal lu ko gënal def fi daal alxuraan te daanaka fi ma doon këram loolee moo waral moo moo booleeg dëkk bi ba tax na ñu def fi daara xam ne loola ragal naa daal ku ko fekkoon fam ne wax ko ne ko lu la gënal ci liñ fi war a def bu wuuteeg liñ fi def nii loolu moo tax ñu def ko yàlla dogal bi mu indi daara ji moom sonn na ci lool wax dëgg yàlla ndax gone yi di kenn mu séyalwaan sama bunt kër sax ba jënd tey ji ba ne sëñ bi ubbi jàkk tàmbale jàkk ji ne kenn fekk ko ci mu ne mu nekk ne ba mu ba mu koy ak ba ñu ko noonu jëf yooyu ñu doon bàyyi xel seen chaîne euh, de télévision euh, zone vingt 28 ci seen émission topp tànk ñi ngi ko tàmbalee woon fi nga xam ne moom moo di ca Ndindi jeexalee ko fi nga xam ne moom moo di ci Kër Kàbbu ànd ci ak ki nga xam moo di Serigne euh, Serif Mbacke Fantama di bu Cheikh Mouhamadou Fadal ibnu Xaadimu Rasul yaakaar naa ni tey jii ñi nga xam ne ñoom ñu si te bëgg topp tànku Serigne Serif Mbacke yaakaar naa lu bëree bëri ci ay jaar-jaaram. ak ay objectif ak vision bi nga xam ne moom la am ci dundin ak li nga xam ne mooy liggéey bu am solo bi mu sumb ngir yoonu murit dara umpatu leen ci ñi ngi koy gërëm bu baax a baax ci jàppandal ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci émission ba mu gën a yemb commencé ci Serigne Cheikh Wane Serigne Lamine Touré ak ñoom Serigne Cheikh Samb ak équipe technique bi ñoom Serigne Soy Mbacke Mar ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci coordination bi ñu ngi si seen beneen numéro ak seen euh, télévision zone 28 ci seen émission topp tank yërë ngeen jëf toppal ma tànki gaa yu baax ya aw jiib xal wu jub wa